mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw ndax fan yi réseaux sociaux yi dañuy gis ne dañuy wax ci diggante soxna ayda ak sëñ Saliou Gueye Tapé ndax ñun ñii nga xam ne ñun ñi ñoo nekk njabootub Serigne Béthio ndax njabootub sëriñ Béthio Serigne Béthio suy wax ay njabootam ay taalibeem la sëriñ Béthio buy tudd njabootam ay taalibe lay wax moom. ndax taalibe sëriñ Béthio yi ñun ñii ñun ñii ñun ñooy ay njabootu sëriñ Béthio ñun ñii ñun ñooy ay njabootu sëriñ Béthio ndax ndax sëñ xaadim sëñ saaliw gël tàppe sëñ saaliw gël tàppe moom mën na dondu ko sëriñ Béthio waaye taalibe sëriñ Béthio yii munu leen a dondu munu leen a dondu ndax ñun sëriñ Béthio ñun moo moom te Serigne Béthio fu ñu wax ne jëm leen fii fa la ñuy jëmee ndax sëriñ Béthio soxna Aida lañu ñu boole ndax Serigne Béthio ba mu naan soxna Aida yaay man maay yow ñoom leen tere ñu wax ci loolu doomu Serigne Béthio mënoon nañoo wax ci loolu mënoon nañoo wax ne seen bàyyi lu tax ngeen ne soxna Aida yaay man man maay yow tey nag ñu bàyyi nag ba bay béy woy mbuus ñu ñu ñu ñu nekk fi di defanteeg ak a dàgg soxna Aida amul seen jot soxna Aida. amul seen jot liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dong la am jotam mais ku yor làmmiñam di taltali di wax te xamoo soxna Ayda amul sa jot ndax ñun Sëriñ Béthio moo ñu jàngal Sëriñ Béthio lu mu ñu jàngal mooy xamuñu lu dul liggéey xamuñu lu dul jëfal Sëriñ Tuubaa kese lañ xam waaye di nekk fii di dàggasante ak a defante ñu ne Sëriñ Béthio jàngaluñu ko woon ndax Sëriñ Béthio senegal gi dégg na fi lu ne fii ñu fi yor seen làmmiñ di taltali di wax tey jii ñoo daan wax ci sëriñ Béthio naq su dul noonu sëriñ Béthio dégg na fi lu ne lu nekk sëriñ Béthio dégg na ko fi ah, tey daal la wan ginnaaw ngeen mën a nekk fii naan ay da koy waxal rafet sëriñ Béthio bu may dund waxaloo leen ko woon lu rafet sëriñ Béthio lu nekk ngeen ko daan waxal lu ne lu nekk dégg na ko lu ne ba mun naa soxna Aida may yow yaay man te jàpp ci yow muy dëgg-dëgg jàpp ci man ba mu ko koy wax ne ko ba ma ko sëriñ Saliou waxee woon ñu bari bari bari bari gëmuñu ma woon am na ñu ma gëm te am na ñu ma gëmul te loolu mënu muus ak mucc ba ba ba ba ba ba ba génn ci kon sëriñ Béthio xam na xam na lu mu def ci soxna Aida xam na ko ndax soxna Aida ba muy liggéeyal Serigne Béthio boobu ay doomu Serigne Béthio ñoo nga sa Europe tëdd ndax man ñun ñii ay ay euh, njabootu Serigne Béthio lañ te ñun lu ñu te ñun lu ñu xam ci Serigne Béthio ay doomam sax xamuñu ko ndax ñu Serigne Béthio daf ñuy wax lépp lépp lañu daan wax bañ na ko ba lu lu mu gën a bëgg ci àdduna moom Serigne Béthio à part Serigne Saliou muy taalibe bi Serigne Béthio daf ñu bëgg Serigne Béthio daf ñu suturaal Serigne Béthio daf ñuy déglu Serigne Béthio daf ñuy dénkaane daf ñuy dénkaane Serigne Béthio njabootam gi wóoluwu ci kenn ku dul soxna Aida ñi nga xam ne ñun ñooy taalibe ñu ñooy njaboot gi wóoluwu ci kenn ku dul soxna Aida mais Serigne Béthio soxna Aida la def jëwriñ université jëwriñ université la ko njëkk def na ko foo taxaw yow yaay seen jëwriñ ñëpp Serigne Béthio soxna Aida la leen boole ba si ñoom ñooñu nga xam ne dañoo yore seen làmbeñ ci tartar yi ba ci ay doomu Serigne Béthio ñoom Serigne Béthio soxna Aida la leen boole. soxna Aida la leen booleel ñoom su fekkoon ne ay jàmbaar lañu ñoom ba fekkoon ne dañ doon liggéeyal sëriñ Béthio di ko jëfal di ko liggéeyal ba sëriñ Béthio xam ko kon kon ñoom ñooñu kon sëriñ Béthio kon di jël soxna Aida di ko def jëwriñ comme ñoom ñooñu noonu lay jël lay jël lay jël lay jël def leen def leen jëwriñ waaye sëriñ Béthio soxna Aida moo ko liggéeyal soxna Aida ba muy nekk ci naaj bi di liggéey di ko ko indil boobu noonu ay doomam ñoo ngi tëddi Europe ñoom dara ñoom ñoom dara intéressé wu leen lu xaalis ay kër moo leen intéressé loolu képp moo leen intéressé soo leen déggee fu ñu wax gaarawaale soxna Aida dërëm la te ñoom wax ji wax ji wax ji wax ji wax ji wax ji wax ji soxna Aida saa yu leen joxee dërëm ñoom duñ ko delloo di duñ ko delloo màggal soxna Aida jënd na ay nagam yóbbul sëñ Saalu Gueule Tapée jox ko dërëmam waa léegi lu tax delloowu ko. lu tax delloo ko gàmm gi noonu mais yow ki nga xam ne moom bu la joxee dërëm moom nga jël teg si loo wax gaarwaale ko waa kooku noonu moom moom baa moom gëmu la gënu la gënu la gënu demin <laughs> gaa yi dama bëgg ngeen yeewu ngeen yeewu ñun kenn mënuñoo nax ñun kenn mënuñoo nax fii ku fi yore sa làmmiñ du tartari di wax di wax danga xamul waaye ñun ña xam ñoo ngi ne patt toog te wax nag su jotee ñun dañuy wax ndax soxna ayda moom ñu jàngaluñu bëggul sax moom kuy defante baa ngay dàgg sante soxna Aida bëgg ko ndax su fekkoon na defante ak dàgg sante rek la moo leen dàq ko wax fuuf kon di ngeen ko dégg mu nekk ci réseaux sociaux yi di wax waaye du ko def ndax lan sëriñ bi ko jàngal du ko ko sëriñ bi ca da koo jàngal liggéey jëfal sëriñ Touba ñun ñii de moom ñun ñii de ci loolu noonu la ñu yar ñun soxna Aida ñun moo ñu jàngal jëfal sëriñ Touba ñun soxna Aida moo ñu ko jàngal xamal ñu ko ñun xamuñu woon lan mooy jëf jëf xamuñu ko woon di mais njabootu mais doomu sëriñ bi moo wax sax njabootu sëriñ Béthio ndax njabootu sëriñ Béthio ñun ñii la ñun ñii la ñun taalibe ñun ñoo njabootu sëriñ Béthio mais doomu sëriñ Béthio laay wax. dara intéressé wu dul xaalis seen télé télé géeg seen wax géeg dara intéressé wu leen dul xaalis waa àdduna bi dama bëgg ngeen ubbi seeni bët ubbi seeni nopp tey déglu di xool mais dafi sëriñ Béthio wax moom ngi fi du jeex dama bëgg ngeen gëstu waxtaani sëriñ Béthio dama bëgg ngeen eh, gëstu waxtaani sëriñ Béthio mais soxna Aida di ko sëriñ Béthio defal moom sàkkuwu ko ba am ko sëriñ Béthio moo ko defal ndax lan dakaa liggéeyal liggéeyal lox ko defal da ko liggéey moo tax mu am ko mais ñoom Serigne Saliou Gueule Tapée liggéeyuñ ko duñ ko am dangay xool dangay xool diggante soxna Aida ak Serigne saalu Gueule Tapée événement bu amee ngeen xool ñaari jëmm yooyu fan ngeen gisee Serigne Béthio fan ngeen gisee Serigne Béthio ndax sëñ sëñ euh, sëñ Saaliw Gël Tàppe sëñ Saaliw Gël Tàppe ñu ko topp ñëpp sëñ Saaliw Gël Tàppe mu yëkkati seen dërëm di leen jox waaye ñoom ñoom ñooñ de duñu yëkkati mukk seen dërëm di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko jëfal waaye ñun ñi nga xam ne ñu ñoo topp ñun soxna Ayda ñun ñoo yëkkati suñu dërëm comme nañ ko daan defalee sëriñ Béthio ni wëlbatiku di yëkkati suñu dërëm di ko ko di ko ko di ko ko di ko ko jëfalee ndax sëriñ Béthio moo ñu boole woon ak moom sëriñ Béthio soxna Aida Saliou Thioune moom moo ñu xamal lan mooy jëf moom moo ñu ko xamal moom moom moo ñu ko xamal doomu sëriñ Béthio yi ñu nekkee fii di tartali di wax dara intéressé wu leen dul xaalis bokk taaliba yi xam nañ ko de dara intéressé wu leen dul dërëm dërëm képp moo leen intéressé kese kese moo leen intéressé waaye ñun ñoo moom suñu dërëm ñoo moom suñu ñaar dërëm ñoo moom suñuy million ñoo moom suñuy milliard te soxna Aida lañ koy jëfalee su fekkee ne loolu moo tax ñu tartari di du yuuxu ak ak wut wàllu ñu ne soxna Aida dañu wóolu tey jii ak ëllëg ga ñu jëm ba keroog ngay fekk sëriñ Béthio sëriñ Béthio mu ñu boole woon ak moom moom la ñu continuer di ànd ak moom soxna Aida lañu ñu gëm moom sëriñ Béthio la ñu te soxna Aida lañu ñu booleel boole wu ñu ay sëñ Saalu Gël Tàppeek ay sëñ Xaadim ciw nag boole wu ñu ak moom te ñun daf ñu jënd jàpp ñu. defuñu jënd jàppuñu sëriñ Béthio comme ñu wax nañu moom la moom la comme ñu waxul nañu du moom du moom. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV